triste nouvelle ci diwaanu Pikine tali bu bees mu di benn couple bu ñu xëy rek daal leen gis ñu faatu tey jii ci talaata ji waaye nag couple boobee ba jamono ji rek ñuy wax ak yéen li leen faat kenn xamagu ko waa ji mi ngi tudd Mouhamed euh, Kamal Diouf nekk commerçant ca marché poisson bu Pikine soxnaam si wuyoo ci turu Aïda Faye nekk esthéticienne waaye nag ñoom ñaar ba ñu marié woo yàggul dañoo xëy rek daal leen di gis ñu daal di faatu ci seen néeg boobule pour le moment kenn xamagu ko waaye nag ab enquête daal nay door ca police bu Pikine ba police sax scientifique bi jot nañoo rek daal di wàcc ci lieu yi drame boobule daal di xewee ba jot fa def rek ab euh, constat en rek yi autopsie bi génn ñu xam rek boobule couple lan moo leen faat lépp lu ci fasaar rekk dañ leen ko indi laat ci suñu yeneen i jotaayu xibaar.